76 778 32 03. na fii ci Kaolack la ko njëkk a fekk ci jumaa ji nag nee na booba jumaa ji tolloogul nii nee na mu ñëw fi tisbaar nee na ànd ak alxaaji Aliyun Siis nee na moo ko indi ci moom nee na mu nuyoonte ak moom nee na mu teg ko ci béréb nag ca ja jàkka ja wala ca jumaa ja ca kër ga ca kër ga nee na ba dem jumaa ja jot mu téye ci loxoom ba ñu ànd ba ñuy dox ba yegg ca jumaa ja nee na moom daawul jóg ci moom fa tabarakallahu nee na mi ngi wax léegi ni Maroc la yàlla dogal seen mu gise ca la jóge tukki yàlla dogal li mu dogal waaye moom daal baayam boobu amoon na ci moom cofeel lool nee na tey nag mu ñëw fi di séddoo gi yéen lii leen yàlla boole nee na lii yàlla boole lépp kat nit mënu cee teg bët waaye am na loo am na ci nag loo xam ni bu ko nit ñi dee dégg ko nit ñi dee dégg te xamuñu ko te war nañu yëngu nañoo yëngu ñun lu ñu mën a teg ci seen loxo mën a teg ci seen loxo ak lu ñu jàpp ba ñu ni nag ndekete ndekete diggante ngi fi waaye yii rek ngeen gis yem leen ci di ngeen leen ci di ngeen gis te wormaal ko ku ubbi sa néeg ku ubbi sa fa watitu jaan fekk nga dellu gannaaw gisuloo jaan gisuloo jaan ja de nga fa fekk kon kon nitu yàlla yi nitu yàlla ñun nañu jéem a ragal yàlla ci ñoom ndax ñoom ñoom lañu yàlla booleel. yàlla wàccul kër kenn. nee na yàlla wàccul kër kenn. waaye wàcce na ay mayam na nag ci ay kër. kër gii ci kër yi yàlla wàcce mayam ci la bokk. sëriñ bi nee bëggul a guddal. waaye sama waaye yéeneem. yàgg na na. mu bëgg a toog ak yow. di ko fàttalikoo sama mbokk mooma di cheikh seyd xasan rahmatullahi alayhi wa radiya an nee na xelam daawul jóg ci moom benn yoon nee na alhamdulillahi rabbil alamin yàlla bu yàlla dañ di yokk leeram lekk yokk it leeru way jur ya ak leeru maam ya te ñun nag yàlla taas ñu ci seen barke alhamdulillahi rabbil alamin nee na yàlla la teg ci kanamu nit ñi yal na la yàlla sàmm ci kanamu nit ñi yal na yàlla yokk sa sutura yal na la yàlla barkeelal nee na toppekat yomb na waaye jiitu moom yombul jiitu moom yombul rawatina njiit loo xam ni nag ña ca sa gannaaw lu ñu def ñu gàll la ko yow moo tax jiitu yombul waaye yàlla na yàlla di sa gidd nee na bu la yàlla jiitoo nga topp ca moom doo tarxiis doo jàdd doo juum yàlla na la yàlla defal loolu amin bi rasulillahi nee na kilifa gii nee na kilifa gii li mu wax léegi bi muy ubbi ci njàng mi ak réew mi nee na réew mi dafa nekkul nag ci suñuy loxo ñun rekk réew yëpp am na lu fa yàlla am moom la ca des waaye kenn joxu ko ko nag nee na fii nag boo jëlee Sénégal ñépp jox nañu yàlla li am boo duggee nag ci tariqa cheikh na ahmed tijani ña ko seq la ñu am ak seen bopp lañu taxañ dañ loola la taxañ jox yàlla yàlla ñoom ñoo ñii séddoow ñoog yàlla dara jox lépp seen boroom nee na loolu moo tax ba lii nga wax nii ci njàng mi du fi yomb de li tax nag du fi yomb mooy seytaane làmb na fu ne xelam dal ni am naa fi nangam ak nangam fii nag awma ko amaguma li ma bëgg moo tax ñoom moom duma leen noppal ñoom fu ñu dugg ma rax ko nag loolu moo moo indi jafe-jafe bi xale yépp mokkal nañu tubaab bu njëkk ba mag ñi dañoo defe ku jàngul tubaab doo am wërsëg ñu bëgg a jàng tubaab liggéey ñu dem nag ba jamono ñëw ña jàngi woon tubaab mujj nekk ay sëriñi tariyaax ndax xam nañu ni fa ñuy jublu bu ñu fa yeggee duñ fa fekk dara ñu walbatiku léegi ñëpp ay sëriñ lañ léegi loolu yëpp nag xeetu liggéeyu seytaane la liggéeyu seytaane la nee na waaye nag yàlla baax na mag ñi ñoom liggéeyal nañ seen boroom ba mën nañoo wax ni yàlla wax na leen ni jërë jëf dafa mel ni am na lii nga wax nii itam loo mënul am léppam loo ca am doyloo ko te loolu moo di nag mbooleem kuy làkk tubaab sàggane li ci des bokk nga ci ab daayira kon la nga ne safu li nga yóotu loolaa la saf nee na kon bu ko defee nag sëriñ bi ñu ngi lay ziyaara di la nee na mi ngi bég nee na jataay bii moom mi ngi mi ngi lay yëgal ni bég na ci lool bég na ci lool nee na àddina tu dafa tuuti te léegi dañu daan dégg léegi la nga daan dégg da nga boole di ko gis leen loolu nee moo tax dara umpetul fa tabaarakallaahu nee nee loo daan dégg bëgg ko boo boo tegee ca dégg ga gis ga loola raw fa nee na loolu yi nag moo ñu dal cofeel googi gi ak xorma ju mat sëkk ci kër gi ñu indi ko fi nee na kër gii waruñu fee dugal dara lu dul xorma xorma rek lañ fi sa lañ fi sañ a dugal te ñaan yàlla nag bokk nag ci njaboot gi yàlla nañ ci yàlla boole amin nee na wax na léegi ci kër xalifa bi nit mën naa bokk ci mbir mi mën na cee nekk ci mbir mi te du ci bokk waaye lu mu yàgg-yàgg nag lu la yàlla boolewul loo ca yàgg-yàgg daa ca génn lu la yàlla boole nag doo ca génn mukk nee na kon yàlla nañ ci bokk nee na li liñ fi fekk moom mënatuñoo def lu mel ni lu tol ne loola waaye kenn ku nekk ci ñun la ca saw laaj nga bay ko nag nee te rafet te jéem a rafetal mbay ma nag fa tabaarakallahu nee na yàlla pare na démb nit ñi ñoo fi des di soow coow nag amul solo de nee na coow moom ña sànq sa jamono rek la nee baaxul jaa baaxul coow baaxul nee na bari na koy romb mu yalwaan la boo watul tàllal na la loxo waaye moo la gën cee yàlla te xamoo ca dara bu bëccëgee mu yalwaan la bu guddee mu ñibbi ci yàlla xamuloo ko yow mi ngi ci biir nit ñi nga di ko romb nee na kon nag kuy wuti yàlla bant bu damm sax yéem ca suñu boroom ci nan la def ba damm te bi dend ak moom dammul nee na yéemal yàlla ca loolee yàlla daal ëpp naa xeebal dara dara dara yàlla xeebalul kenn dara fa man yaamal mithqaala darratin xayran yàlla nee na xeebuma wa man yaamal mithqaala darratin charran yàlla nee na xeebuma góorgóorlu leen te liggéey li ma amee ñëpp xaj nañ ci waaye bu kenn naagu nag bu kenn naagu lu ni def rek man yàlla xajoo naa ko ndax maa la bind maa wàcce sama yërmande maa am doole te yow dara nga amul fook ma dugal la nag ci sama doole sama doole nag ci yow mooy sama yërmande waaye boo naagoo nag defe ni dama laa war a yërëm par force nee na yàlla nee na ma seetaan la yàlla nañ ci yàlla musal amin sëriñ bi daal nee loolu moo doon kàddu yi ah na mi ngi ànd ak sëriñ Habib Ndiaye sëriñ maam Ousmane ak sëriñ Mouhamadul Habib si sëriñ Mouhamadul Habib si nee na Habib moo la ñëwaloon ca ca ca dëj bu bees ba